asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi ciy màggalu kastu rajab tey ñu am ay gan yu tedd yoo xam ne dañoo ñëw fii ci bis bi di màggal si euh, muy délégation bi nga xam ne dafa jóge ci Pastef di délégation bu takk ci njiital suñ Seex Coro waaye ñu ngi nii toog ak suñ Moustapha Sare euh, doon kenn koo xamante ni taalibe la doon koo xamante ni kenn lay tamit ci njaboot gi fii ñu doon laaj seen tànk yi mooy lan tey jërëjëf sëriñ Niang suñu tànk yi day tànk jàmm la rek président Ousmane Sonko mi nga xam ne doom la ci kër gi moo yónni euh, ngir ñu teewal ko ci bis bu màgg bi bésub sëñ Fallou bi nga xam ne bisul lislaam yépp la moom ci boppam sax amoon na mébétu ñëw ba démb waaye xam gis ngeen xew-xew yi rek ba fi mu ne nii dañ koy tere sax daanaka génn buntu këram euh, moo tax mu teel ñoo wax biig ci guddi à une du matin nañu daal nañu lu ñu mën a def nañ ko bàyyi te ñëw yëpp euh, teewal ko fii ci bis bi ñu ànd ak nag délégation bu yaatu ànd ak honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké mii ànd ak Ahmad Lo mi nga xam ne moom mooy coordinateur départemental bi ànd ak euh, maxtar Sène mii di trésorier général ak ñu bari ak ñoom Imam Dramé ak ñoom Ngagne Demba Touré ñoom ñëpp lañu ñu Ousmane booleel pour ñu teewal ko fii sàkku si ñaan waaye it feddali si kóllëre gi nga xam ne moom la fasante woon nag sëñ Abdou Fatah fasante ko waa kër sëñ Fallou gépp euh, loolu nag am nañ ci mbégte lu rëy ndaxte suñu xel daal dal na bi ñu gisee ak sëñ Abo ak sëñ Abdou Fatah suñu xel gënati naa dal te gëm nañu ne incha allah buñ fiy dellu siwaat ci beneen anam lañ fiy dellu siwaatee ndax dalal nañu suñu xel bu baax a baax a baax. waaw loolu daal moo doon tànk yi waaw tey ñaanal umma bi yëpp di ñaanal taalibe yépp yàlla dolli jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj réew moom boo ko bëggee defar bëgg ko liggéey ci jàmm rek nga ko mën a liggéeyee moo tax euh, ñuy ñaan yàlla yàlla def jàmm ci senegal ci barke Serigne Touba barke Sëñ Fallou te gëm nañu ne ñi nekk ci dëkk bi tëdd fi tey ñaan gëm nañu ne jàmm rek kay am ci réew mi incha allah. su ma la doon wax tey ñu nga ci bis boo xam bis bu rëy la di bisu bi nga xam ne ci la nu bi sallallahu alayhi wa sallam riñaane muy bis bi suñu fàllu gane àdduna su ma la doon wax ñaan ci genn ñaan rek genn ñaan gooy ñaan. Euh, bu ma ci doon ñaan genn ñaan de dama koy ñaan lawaale ko askanu senegal yépp mooy mettit wi nga xam ni moom moo nekk ci kaw ndoddu Sénégal yàlla dindi ko yàlla changé réew mi ba lépp loo xam ne def na ko fii yàlla ci boppam moo fi def lu ne. Mm-hmm. askanu mu mu law ci askanu Sénégal yëpp askanu Sénégal yëpp jariñoo ko te loolu lu mën a ne la. loolu nag mooy suñu xeex ñun waa Pastef fexe ba réew mi changé. Mm-hmm. li ñëpp bokk ñëpp jot ci. loolooy suñu euh, suñu xeex. Mm-hmm. te it jàpp nañ ne mooy xeexu képp koo xam ne rek bëgg nga réew mi. waaw sëñ Touba mi fi tëdd li mu doon ñaan rek mooy askanu Sénégal du dellu ginnaaw mukk looloo ko waral looloo waral coono yu metti yi nga xam ne moom la daj ci àdduna bëggoon doomu Sénégal doomi Afrique doomi jullit nit ñëpp mbindeef yëpp sax la sëñ bi wax ku ne rek li nga yellool ci àdduna yàlla defal la ko ci tànk yooyu rek lañuy lañuy la ñuy jaar ñun waaw ah. Moussa ñu ngi lay sant bu baax. jërëjëf sëñ sëñ Cheikh euh, euh, la la le le 24 ndax euh, c'est confirmé ne dina na am meeting fii ci Mbacke. déet loolu ñu ngi waxtaan. luñ ci ah. tënk rek incha allah dinañ communiquer Sénégal yëpp xam ko waaye yow nag ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay Sénégal yëpp amee nañ leen njukkal surtout waa Touba.